mooy suñu amoon match nul 0-0 et cetera peut-être que yeneen match yi ni ñu koy du nekk benn. Mm-hmm. mais on a très été dos au mur. Mm-hmm. contre perte contre Pays-Bas. avec un style de jeu boo xamante ni moom la coach bi andi nga xëy dal ci Qatar. normalement ci obligé nga wuti victoire. Mm-hmm. te xam nga ni système bi nga joué contre Pays-Bas boo ko joué doo gagné. wala boo gañee tamit du yomb comme ni mu yombee woon moo tax contre contre Qatar ñu ñëw andi moins de joueurs défensifs renforcer les joueurs offensifs andi un waa di quatre attaquants avec avec ak ak ak Boulaye euh, loolu tamit créer la beneen circonstance circonstance yi mooy lan gagné nga ak défaite am trois points hmm. am ñaar ñu nekk ca kaw ku ne am 4 points nga nekk si cas de figure boo xamante ni soo bëggee qualifier da ngay gagné hmm. et taseetoo danga am équipe boo xamante ni lu mu bon bon bon bon su la mënul mënoo ko donc moo va dire que techniquement yéen a xaw a tolloo niveau. Mm-hmm. donc vous pouvez vous regarder les yeux dans les yeux moom la Mansour wax léegi léegi. Mm-hmm. nga ñëw ak dispositif boo xamante ne Aliou Cissé wax conférence na il faut que ñu gagné. moo tax mu ñëw andi pourtant il a amené un 4 3 mais sauf que 4-3-3 bi. Mm-hmm. bokkul ak Pays-Bas. parce que bii c' est carrément je viens avec beaucoup plus d' ambition. Pays-Bas te damay ñëw gérer. bii damay ñëw ak ay ambition mu indi Pape. indi gànn daf leen ñaari relayeur aj leen ci kaw. Mm-hmm. andi benn booy bu xarañ boo xamante ne am na vivacité. teg ko seen ginnaaw andi Iliman place Crépin indi Iso et cetera. et comme ni ko Mansour waxee salaamaaleykum je pense en 5 10 15 minutes gànn loolu avec un peu plus de lucidité di koy door ci kaay mu dugg. Mm-hmm. donc salaamaaleykum 1 mm-hmm. occasion bi Boulaye. avec beaucoup plus de lucidité également da koy croiser intérieur du pied mu dugg. mais loolu rek comme ni mu ko waxee je pense que loolu bi mu amee les Sénégalais yu bëri seen xel xaw a dal. on lii moom c'est possible et puis lu ñu gën a faciliter bi également mooy cas de figure bi ñu doon bañ bi ñu tàmm mooy suñu nulee calcul xam Sénégal bëgg calcul suñu defee lii defee lee mën bii amuloon calcul mm-hmm. donc Équateur moo nekkoon si cas de figure boobu mm-hmm. damay attaqué du ma attaqué su ma nulee dinaa qualifier mm-hmm. le coach contrairement au Sénégal n'avait aucune raison de changer de configuration mu ne eh Sénégal laa am Sénégal day andi densité milieu man bàyyi ma bàyyi sama 4-4-2 bi andi 4-3-3 ils ont fait jouer je le rappelle ah benn joueur boo xam ne tudd Franco c'est un milieu de terrain. Mm. qui n'avait jamais joué. c'est la première fois mu joué. ils avaient un un un un milieu défensif qui mu am ñaari jaune. nga génnee ko mu andi Grueso bi nga xam dafa blessé woon. donc finalement ils se retrouvent dans un milieu à trois milieux yoo xamante ni les deux sont nouveaux. Mm-hmm. mu andi ko par force parce que Sénégal la am en face. la preuve loo ci gis premier mi-temps dafa jël biwu Sénégal 46e minute. mu waañ bu changement bokk mu génnee Franco dugal fo kii dugal euh, Cervantes bi nga xamante ni. Mhm. mooy ailier la. mu def excentré excentré def ñaari numéro 9. non exa finalement mu def ñaari siisam. Mhm. Plata génn droite. ki mu jugal léegi léegi génn gauche donc du coup il se retrouve li mu li mu li mu bëggoon def au ah. parce que doon calculer. moom la mujjee def. il avait perdu minutes. moo tax mu ñu ñu sëpp ñu. Mhm. deuxième mi-temps dafa ñëw rek ñu sëpp ñu. mais on a eu la chance. Mhm. encaissé soixante-huitième minute. Mhm. yàlla def si sutura. dañoo defaat rek ñu dugalaat loolu nag moo leen xaw a assassiné. c'était compliqué